Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi tey dama façon yéene incha allahu waxtaan ak yéen si ñaari pàcc euh, waaye xaaju ñaareel bi. dañu ma ñaan ne ñaari point yi dafa intéressant tellement qu'il serait mieux euh, qu'il fasse l'objet de deux vidéos différentes ce qui est très important moo tax euh, ñaareelu xaaj bi euh, danaa ko bàyyi ba prochainement incha allahu taala euh, je voudrais attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur une chose très importante euh, moo tax ma bëggoon ñu def benn jàngat xam ngeen ne xel du dal day daj te am na loo xam ne bëgg naa xel yi daj ko moo di ne dafa am ay démarches yoo xamante ne ñu bari ñu koy def ci at yu mujj yi ngir yàq liggéeyu Ousmane sonk te xam ngeen ni ma ko faral di waxe nit ki même soo àndul ak moom na ngeen jàkkarloo jàkkaarloo bu sell ndax itam politique. science la lu jiitu muy nekk pratique lépp dafay tourner autour de la contribution à la gestion des affaires publiques ay mobilisation la ay massification la ay confrontation d'idées la ay débat contradictoire la ay euh, partage d'information la ay élaboration et proposition de programme la yi nga xamante ne soo amee les leviers nécessaire yi nga war a sukkandiku ngir liggéey muy pouvoir moom ngay dérouler ay stratégie la àndu nawle la bëgg sa réew la bëgg gox bi la waaye suñu demee ba politik nekk saagante ak xasante ak xawi sutura ak tuumalante ak di tudd ndeyu jàmbur ak baayu jàmbur ak soxna jàmbur ak di xool la gën a bon si nit nga feeñal ko ak di xool loo xam ne amul nga sosal ko nit xeetu politik boobu laa bëggul sama réew moo tax ma sonn dama remarqué ne la plupart des personnes qui se sont positionnées comme des adversaires politiques d'Ousmane Sonko sans s'en rendre compte sont devenues de fait son agent marketing ils sont en train de contribuer de manière significative et malgré leur volonté, parce que ce n'est pas leur intention, au renforcement de ses capacités d'intervention politique, à la valorisation de son image et surtout à la reconnaissance euh, de son patriotisme, de son engagement citoyen et de la pertinence de la qualité du contenu du programme de redressement de la gouvernance et du développement durable dont il est porteur ñu def ci jàngat bu am solo Ousmane Sonko dafa am baccalauréat bi muy am ñaar fukki at jàpp ñaar fukki at ak benn mu jànge université Gaston Berger de Saint-Louis ba am maitrise en droit public mu bëggoon a bokk si ñuy defar réew mi mu choisir def concours d'entrée à l'école nationale d'administration réussir ko avec brio dañuy tënk ah, jarul ñu ñëw si détail bimu defee formation mu génn comme inspecteur principal des impôts et des domaines xam ngeen jaar-jaaram si centre des services fiscaux bu Pikine ma fàttali ne Ousmane Sonko ñu bari at yii lañ ko xam mais tey laay néew lu bari si parcours ngir ngeen xam ne dafay yàgg a nekk ku bëgg réewam bañkat bëgg a soppi li am nga ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom loolu moom am na te yaakaar naa ne même ku jàppe ne noonam nga doo ko dindi ndax li may wax li koy firndeel mu ngi fi ce sont des faits qui sont produits et tous les éléments sont vérifiables et vérifiés Ousmane Sonko moo njëkk xalaat wax ne faw ñu samp li ñuy wax syndicat autonome des agents des impôts et domaines amul woon de 1960 ba 2000 ñeent fukki at amul woon Sénégal moo tax Ousmane Sonko di andi lu bees ci réew mi du bulet ci deretam la da ko yàgg def C'est Ousmane Sonko qui a été à la base de la création du syndicat autonome des agents des impôts et domaines ñu ngi may dégg moo tax moo nekk secrétaire général bi ay at liggéey ba am solo ci fànn yépp ba ñu def ko secrétaire général honoraire waaye ci biir loolu nekkoon chef de brigade de vérification fiscale en charge du secteur immobilier maanaam cër boobu ku ko am ci biir réew mi soo jubul wala mànd woo wala yéene woo yi wala nga jug ngir dajale alalu askan wi ngir yow doom ak sa njaboot dangay ngay doon milliardaire ci lu gaaw Ousmane Sonko ne moom day jiital yàlla jiital ngor jiital jub tagguma ko de ministère des finances ñu may déglu ministère de l'économie du plan de la coopération internationale ministère du budget yañu boole ak yañu ñu tàqale képp kuy liggéey ci haute finance ci réew mi yaa ngi may dégg ñamew maa wax askan wi lu dul dëgg Ousmane nekkoon na auditeur interne soo demee direction des impôts et domaines dafa am direction du contrôle interne Ousmane Sonko nekkoon fa di liggéey moom la réew mi dénkoon mu jiite xaatim bi ñuy xaatim li ñuy wax charte de déontologie xam nga dafa am éthique am déontologie l'éthique est liée à la morale tandis que la déontologie est relative à la profession su ñu nee am éthique mooy nit koo xamante ne su wéetee moom rek balaa muy wax wala muy def walla muy bind dina jiital yàlla si moom ragal a def loo xam ne su wéetee dana am gàcca conscience dikk mu ne lii de mën naa ko def nëbbatu te kenn du ko xam waaye sama diine mayuma ko sama ngor mayuma ko sama jom mayuma ko te baaxu ci askan bi kooku mooy éthique déontologie mooy li nga xam ne moo ma tënk ci métier bi ma nekk dafa am luñ ci nangu am luñ ci bañ jomm naa ko loolu lañ ne woon na jiite ñu xaatim ko waaye 2014 si la sos Pastef xam nga Pastef ñi ko sos dañu wax ne patriotisme mooy bëgg sa réew travail mooy liggéey fraternité mooy am diggante yu rattax ba mel ni ñun ñëpp a bokk ndey ak baay ah bi loolu amee. ay nit ñoo wax ne ñoom Bassirou Diomaye fay ñoom Birame suley ñoom El Hadji Malick Moustapha et cetera Djibril ak ñeneen maanaam dañu toog ne gannaaw bi ñu càmbaree réew mi ni muy doxe ci fànn yépp faw mu am anam bu bees bu ñuy defee politique ngir jël nguur gi saafara soxlay askan wi ñu ne ñoom dañoo bëgg réew moo xam ne du am sàcc du am luubal du am jariñoo alalu askan wi du am cere buur boo xamante ne rongañu askan wi moo koy siim du ñu nangu réew mi ñu jël alal ñu baari dajale ko ci benn loxo nga xam ne benn nit dafay am téeméeri kër téeméeri oto ay tool ay compte bancaire euh, nekk ci Doncaster City moom ak njabootam askan wi sonn bi ñu xalaatee si wàllu paj wàllu wérgu yaram wàllu cosaan ak aada wàllu diine wàllu xëyu ndaw ñi wàllu jigéen ñi wàllu njàng mi wàllu dem ak dikk wàllu koom-koom wàllu ni ñu yore réew wàllu diggante ñi jiite ak askan wi lépp ñu ne faw mbir mi soppeeku moo tax ñu andi esprit anti système parce que am na loo xam ne c'est structurel am loo xam ne c'est conjoncturel donc am na loo xam ne c'est systémique waxuma systématique de systémique ñooñu bi ñu déggoowee si dañu dem jëli Ousmane Sonko né ko ñun de am nañ xel waaye kenn du yow am nañ xam-xam waaye kenn du yow jub nañ def ñu fi benn njombe waaye kenn du yow dañ laa xam miin la kaay jiite moo tax Ousmane Sonko. du moom moo sos Pastef dañu sos Pastef ci anam bu leer dem ne ko xel ak xam-xam ak njub ak mbaax ak bëgg sa réew ak xarañ ak lépp ñun ñuy liggéeyak yow ak ñi la topp ba nga juddoo ba tey xam nañ ne yow yaa gën a yey ci jiite ñu donte ñun ñoo ko sos mu ngi mel ni nga fexe ba ñu am jàkka nga dem ne nañu tànn diw ilimaan ndax alquran ba sell na mokkal na ko dégg na ko fiqam mat na dégg na charia jub na sell la lépp luy daje si njiitu diine mu ngi si moom waay waay waay waay kaay jiitañu noonu la mbir mi dem loolu moo tax may faral di wax ne Ousmane sonk n'est que porteur d'un projet de société moo tax Pastef c'est un serpent à plusieurs têtes Ousmane Sonko yàlla na fi yàgg wér am mucc comme ni ma koy ñaanalee képp ku yàlla bind waaye su deewoon woon tey Pastef day continue su ne woon bàyyi naa Pastef day continuer su ko neexoon sax mu ne naka leen jiitu ma topp si gannaaw Pastef day jiitu day continuer waaye moom la waa Pastef tànn jiital ko te boobu ba tey rusloowu loolu moo tax ñi nekk di xeex Ousmane Sonko ils ne sont pas en train de combattre une personne ils sont en train de remettre en cause un projet boo xam ne ñi si adhéré dañoo bari xamoo leen ne ñi ànd ci projet boobu te nekkuñu Pastef moo ëpp ñi ànd ci projet bi nekk biir Pastef loolu na ku deful yenn jàngat yi doo ko xam moo tax réew mi ñoo ko bokk nañu bàyyi ku nekk far fala doy bu ñu xasante bu ñu saagante bu ñu tuumalante bu ñu sosolante bu ñu rayante nguur yàllaa koy joxe te ku mu ne mooy falu kenn mënu ci dara ndax président Macky Sall mi ba muy falu Moustapha Niass ak Ousmane Tanor Dieng rahmatullah alayhi président Abdoulaye Wade Idrissa Seck Amath Dansokho ñoom ñëpp ba Der Thiam rahmatullah alayhi Landing Savané Abdoulaye Bathily ak ñeneen ñu ngi fi woon waaye yàlla moom la tànn mu ànd ak mbetteel nag donc si yàlla nee man damay jiite réew mi wala Ousmane Sonko da koy jiite wala sama doomu bàjjan bële da koy jiite kenn mënu ci dara léegi usmaan Sonko bi mu nekkee di wax ci ay dossier de la République xam ngeen dañ koo dàq wax na ci livre ba mu bind waxaat na ko it ñëpp dégg ko ne ñi ko dàq dañoo yàkkamti waaye suñu teeyoon bés ba yàlla bindoon ngir mu génn fonction publique jage woon na ndax bokkoon na ci mébétam su liggéeyee fukki at ak juróom ci fonction publique dafay def la mu man bàyyi seeti leneen moo tax puisqu'il a été agréé expert fiscal mu ubbi cabinet cabinet euh, dama leen won foofu lan la nguur gi def loo xamante ne dañu foogoon ne da koy yàqal waaye dañ koo defar xam ngeen dañuy wax ne suñu xamee fa nga jëm doo yegg déedéet man nañ xam fa nga jëm da nga yegg da ngeen naan suñu xamee nang fay deme doo yegg nit ñi xam fa nga jëm bonul li bon mooy ñu xam nanga fay deme ñu waxaat tamit ne yàlla suy defar day mel ni kuy yàq <laughs> déedéet yàlla su nammee defar dafay seetaan seytaane jay sa noon mu jug di lay yàqal yàlla feeñal xarañu defaram si biir yàq bi moo tax firawna ba mu naagoo ba ne ana rabbakumul aala ndax iblis jay na ko moom iblis ma ko jay dafa tiit daw keroog la nguuram wàcc te moo ne wax na ko ñiin fukki at seyduna ibrahim bañ ko sànnee sa safara sa yàlla dafa seddal safara sa wan gaa yi ne la nekk ci safara di tàkk ak la nekk sa géej ba ku ci taxaw diig ak la nekk sa ndox ba mën a sedd ak ngelaw ak lépp lu ci aju sirru la ta maa ko amee waaye Seydina Muusa ba na taxawee ne samay buxaaba nee nañ ma ku juddu ci dëkk bi doon góor mën naa màgg ba daaneel sama nguur ni may def mooy ku juddu doon góor naa ko faagaagal yàlla ne muusa dana juddu force nga dundal ko sa budget force mu màgg andi diine fors di la affronter force te doo si man dara force ba bis ñëw mu xar géej gi nga bëgg koo topp géej gi labal la force te noonu la amee moo tax ku yàlla nam ma fal soo ci bëggee ñaaw rek dugal sa loxo xaw kuy falu yàllaa ko xam moo tax rafetalal jëmale si ñëpp gis nga yonente yàlla yuusuf dañ ko sànni si teen ngir fexeel ko yàlla wommat ay nit ñu jël ko nattu leen ñu dem jaay ko dogal ñu jaay ko buur ba jabaru buur bi accusé ko de viol ñu wax wax ba sonn ñu tëj ko kaso si biir kaso ba sala yàlla wàcce nuba wàcce solution yi defaree réew mi réew mi nekk en crise am ñu bokkaloon prison ñu génn informé buur bi ne ko ka nekk sa kaso ba yaa ngi koy sànq waaye moom dong nga am solution àdduna buur bi tijji ko mu régler dëkk ba xanaa xamoo ne man ngaa jël paaka teg ko ci baatu nit ne danga koy rendi fekk ne yow mi téye paaka bi yaa nar dee yaa ngi def complot ngir yàqal nit fekk ne complot boobu noonu moo lay yàqal yow nañu dellu si yàlla ma ñëwaat ci Ousmane Sonko su ngeen demee si décret 2016 1239 du 28 août 2016 portant révocation d'un fonctionnaire de l'État sans suspension au droit en pension di ngeen gis ne dañu dàq Ousmane Sonko pour le motif de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle maanaam am na yum doon siiwal di ko partagé ak askan wi ñi nekk ci réew mi ak bitim réew te ñu ne desee waroon a am fu mu yem foofu laa ne le président de la république moo njëkk a nekk l'agent marketing de Sonko ndax su bàyyi woon Ousmane Sonko génn day gën metti pour ñu soumettre le projet de PASTEF à la population def tournée nationale tournée internationale wax askan wi mais bi mu ko dàqee si loo xamante ne soo demee si situ gouvernement bi da koy gis te ñi am xam-xam si ay fànn xam nañ ne li mu doon wax effectivement moo am assemblée nationale ak yenn structure publique yi gars yi commence ni attention daq boobu président Macky Sall ko te mënoon koo bàyyi mu démissionné wala mu génnee beneen anam moo ko may doole léegi seet dañ ko dàq fonction publique août 2016 ne ko ndax am na yooy wax askan yoo xam ne buggutuñu nga wax ko ñu teg si at 30 juillet 2017 élection législative mu dem nekk député te soo nekkee député da am immunité parlementaire soo nekkee député da ngay bokk si ñuy voté loi yi soo nekkee député dangay bokk si ñuy adopté budget soo nekkee député da ngay bokk si ñuy évaluer les politiques publiques soo nekkee député da ngay bokk si ñuy contrôler action di gouvernement soo nekkee député da ngay mën a saytu lu bari si réew mi te kenn du si man dara maanaam lañ ko doon tere ba tax ñu dàq ko amatul salaire amatul voiture de fonction amatul Euh, ay indemnité ay prime ak yi nga xamante ni si wàllu fonds commun la ak yooyu mu dem di liggéeyal boppam teewul yàlla jox ko péncu ndaw réew ma mu ngi mel ni ngay tere nit mu wax yàlla dégg ko rajo moo tax léeg-léeg nga xañ nit benn fekk yàlla nga koy jox fukk yemul foofu de nañ leen dem Ousmane Sonko bind ñaari livre benn bi mu ne solution maanaam quelles sont les solutions qu'il compte apporter aux problèmes auxquels la population sénégalaise est confrontée en collaboration avec son équipe et de na benn livre si pétrole et gaz chronique d'une spoliation maanaam si jàngatam dafa ne suñu gaz ak suñu pétrole dañ ko saax-saaxee Euh, lépp lu jëm si wàllu octroi des euh, permis de recherche les actes administratifs portant répartition des productions pétrolières et gazières euh, expoitation bi ak yeneen mu ne ay njuuj njaaj la nekkul li gën si askan wi waaye benn groupe minoritaire ñoo koy jariño ku ne am nga sa xalaat damay wax li mu bind rek man am naa si xalaat te dama ànd ak moom si lu bari li mu wax parce que lu ma àndul ak moom rek yàgg naa koo critiquer ngeen di dégg mais de manière objective euh, ñu dem ba si yàgg lu bari lam waxoon commencé di feeñ coow li ne kur ba am ñu ne dañ lay porter plainte ba tey porter ñu plainte ñu dem lu xew si réew mi dans tous les secteurs mu ñëw wax ak askan di def dénonciation euh, am ñu ne déballage mais c'est plus une dénonciation qu'un déballage te lu mu wax daf lay jox ay références léegi nag nga war a débattre ak moom ne ko d'accord na wala d'accorduma te nga teg ko ci xam-xam xam ngeen nag Ousmane Sonko li tax bugguma kenn sànk ko wala ñu faagaagal ko mooy franchement dama jàngat réew mi député bu mel ni moom sa assemblée nationale homme politique bu mel ni moom si wàllu idée wàllu euh, traitement euh, des données liées à la gestion des affaires publiques à la gouvernance li muy wax ci fer phosphate zircon licence de pêche euh, administration fiscale domaniale administration douanière li muy wax ci gestion gazière pétrolière li muy wax ci diplomatie li muy wax ci ndaw ñi jigéen ñi li muy wax ci agriculture élevage pêche industrie li muy wax ci ni ñu war a yore léew vraiment su nekkul njiitu réew sax baax na sim réew rien que pour jeunes yi xam ne mbir mi xel ak xam-xam la ak patriotisme ñu dem ba élection présidentielle gis ngeen jamonoy parrainage dañu dem kër waajuram bu jigéen Casamance am lu fa def xam ngeen dossier bi ba ministre de l'intérieur am lu mu si weddu woon yàlla dogal ñu dem si yoon yoon jox ko dëgg gis ngeen de ñu demaat yu bari yi mu wax si wàllu contrat boroom xam-xam yi suñ ko saytoo gis na li mu wax noonu dëgg la ndax man si réew mi luñ si wax lu am solo te mu ñor askan wi dama koy lijjanti léegi nag ma ñëw si dossier bu mujj bi mbokk yi mbaa xam ngeen ne Adji Sarr keroog bi mu génnee di jouer film le réalisateur euh, Diouf Diouf Ngombe nekk si wet gi parce que Adji moy actrice Diouf njombe mooy réalisateur bailleurs yi ñooy comploteurs yi nekk ci gannaaw dafa wax ne man sax ñi doon wax naan dañ ma tiimale ñaari fetal loolu amul ma ne ko déet aji danga naan la ma bindoon sa plainte ba walla boog la ma bindali woon sa plainte ba amul yow rek yaa wax walla nga ne sama tonton Ndiouf Ndiombe ba mu toogee sur le plateau de la TFM si émission jàkkaarloo ne Ousmane Sonko daf ma tiimale ay fital ah mooy sama avocat de waaye loolu amut yow kay loolu nga doon wax wax ne mbirum viol da nga koo teg nee te sax mbirum viol du yaa koy teg nee dañuy dem si yoon yoon teg ko nee ba àdduna xam ko xam na yow doo wax ko tu dëgg te ña sa nekk sa gannaaw faw ñu feeñ réew mi xam leen ndax itam réew mi ñu fi nekk yor seen alal ak seen pouvoir di lor askan wi mu jaral leen ñu def lu ne faw ñu feeñ moo tax yàlla na yàlla feeña lépp ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen mbir mi lan la dañoo bëgg waa àdduna ne usmaan Sonko violé wul menacé wul de mort deful dara waaye nañu def ci xelu nit ñi ne usmaan Sonko dafa am ñaari jeeg bàyyi ko këram dem am benn gel ba séq naak moom dara loolu lañ bëgg mu dugg si xelu nit ñi waa senegal ak waa diaspora lànk leen xam ngeen lu tax mën a lànk benn man moom gëw mën dara am na wax dëgg yàlla nekkuma woon sa biir barab ba waaye la xew ba bisub tey jii xam nañ ne lépp dara du si dëgg te ñi si bokk commencé nañoo feeñ daanaka feeñ nañ donc manuma seede lu ma fekkewul ndax itam njaaloo si islaam soo ko fekkee yow dong sax waroo koo seede dangeen ngeen di nekk ñeent yu bokkul te kenn du woo mat moroomam wan ko ko te dangeen di nekk ñu màndu moo tax man du ma seede loolu waaye nag am naa sañ-sañu gëm man li ma xam dara dara dara amul te ku gis Adji Sarr ni muy waxe dingeen xam ne la muy wax dund ko. lañ ko wax loo lay wax ndax koo xam ne saa yore lañ laa violé am vidéo boo xam ne yaa ngay fecc di pàkkar ji di snap am na sax ay vidéo yu fuité keroog ci aji waaye mbokk yi di ngeen ma baal àq ma am lu ma wax lu am solo Adji Sarr man document bi ma gis muy lu wér médecin bi nee na ñàkk na ndawam kenn xamul kañ la mu naan damaa am sama ndaw fees dell ma ne ko tonton nangam ak nangam c'est extraordinaire man mii di wax a yéen takk naa ñaari soxna sama àdduna ki ma njëkk a takk ñaar fukki at ak juróom benn la amoon te ndaw la ba ma koy jël wax dëgg yàlla alhamdulilah jànq la moo jur sama taaw ki ma mujjee takk xale la ba ma koy takk vingt ans la am tey mu ngi am vingt deux ans moroom aji saar la alhamdulilah jànq la woon tamit donc xam naa alis jànq waa aji dafa fàtte ne sa jabar su dee jànq sax lew la nga lew ko ngeen séq sëy di jaamu yàlla du caaxaan waxuma laa xale vingt ans nekk si kër diggante cabinet de massage bi ak fa ñu dëkk sorewul nga nekk jànq même suñ séqoo nag yow te amul viol du yombe noonu nañu bàyyi nit ñi ñuy saaga waay franchement non il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Sénégalais c'est extrêmement grave te nag aji mënoo dama ne ko man xawma lii waaw tonton nangama nangam si biir wax ji nga naan daf lay nettali na muy nekkeek ay jabaram ay suma la teeloon a xam duma takk sama ñaareel <laughs> waaye nag aji da gone dañ koo dugal si guuta goo xam ne balaa mu siy génn gis nga Adji Sarr ay mbokkam suñu taxawul yuuxu ñëpp dégg leen ñu wax ak njiitu réew mi dem si yoon jël seen doom li nar a xew sax xamuñu ko parce que dans un complot toutes les traces seront un jour effacées malheureusement bii nag ñi ko def dañoo xarañul moo tax il y a eu beaucoup am na traces yoo xam ne moom elles sont indélébiles kenn mënu ko effacer mais aji na nga ressaisir ñi ngi ko séqal bis buñ demee ba xam ne soo génnee benn bis di nga wax ak sénégalais yi attention de attention aji ay mbokki aji saar nañu jug xale la xale la parce que suñ demee ba amatuñu beneen pexe mën nañoo ragal ëllëg mu génni wax ak sénégalais yi dafal attention xale nga ñi nekk sa gannaaw seeni doom bu jigéen du def lii xam nga Maître El Hadji Diouf du jël doom bu jigéen di ko jouer le film day fexe ay doomam jàng am xam-xam di faju di lekk di naan ngir tekki yow ngay doomu jàmbur sa yaay dee ñu war laa protéger di la jouer film naan waxal diw daf ma siif ba mu jar la nga naan la ma ko jiiñoon sax loolu amul teg naa ko ne waaye na waat ne séq ak man dara aji bëgg ngaa am jëkkër bëgg ngaa ami doom avec la technologie mën nañ jël vidéo yi ëllëg ñu tegal ko sa borom kër walla sa doom xam naa lii gën sax mooy su lu jeexee ñu oo benn ilimaan mu xurba ñu may la Maître El Hadji te yàlla rek tax parce que bàyyiwoo xel ëllëg te ñi nekk sa ginnaaw ñu xel ëllëg jigéen nan la sañ a toogee si biir réew mi naan waa séq naa góor nii laa ko def mu def ma nii léegi waatal ndax defoo ko ngir yàlla bàyyi leen saaga bi ngeen di saaga askan wi te jox ñu cër tuuti te ngeen teg mbir mii ci suuf balaa yàlla di xawi seen sutu sutura léegi ñu continuer dañu bëggoon def ci xelu nit ñi ne Ousmane Sonko ni ngeen ko jàppee ne waaw ku sell la ku am diine la ku jub la ku baax la ku am xam-xam la ku mën a yor réew mi la dafa am jigéen bu muy séqal te du jabaram loolu amul waaye su amoon sax exceptionnellement du tee ñi ko gëm-gëm ko ñi ànd ak moom ànd ak moom xam ngeen lu tax parce que mbiim réew nag si lañ dëkk man nga xam ne dafa bari lu may liggéey Saly te Mbour laa màggee it bari lu may dem ci ay hôtel ndax ay séminaire ak wàllu liggéey euh, la fa ay kilifa di ñëw di def naka sudul noonu sama xat yi nekk Brésil Canada France États-Unis Dubaï dañ may wax boole kook ay firnde ay îles yi Saloum ay Cap Skirring ak biir Ndakaaru appartement yi hôtel yi suñu xamoon kilifa ya fay dem di def naka sudul noonu duñu sax tudd problème mu mœurs Sénégal ndax nañu maytu yu bari siiw Sénégal am na ay kilifa yu takk-takk suuf seeni jabar yëguñu ko Sénégal am na kilifa yuy njaaloo am na kilifa yu am doom yu juddul ci sëy di ko nëbb am na yeneen am na yeneen am na sax ñuy dem mission yëbbaale benn jigéen bu dul seen jabar waaye loolu ñaara si am benn c'est la vie privée des gens ñaar ñun attewuñu ko yàllaa ko war a atte loolu moo tax ngeen war a bàyyi affaire u mërs ndax su caaxaan jeexee man de Malick Sow maa ko waat billahi wal kitaabi wallahi exceptionnellement su ma duggoon si ne gis Ousmane Sonko Ousmane Sonko nga baal ma ndax kilifa nga waaye damay damay yeete rek nga baal ma ni ma waxee noonu xam naa ne ku sell nga su ma duggoon si néeg exceptionnellement gis que muy njaaloo sax laa wax du tee la ma gëm si xelam ak xam-xamam ak xarañam ak mën a defar Sénégal dama koy gëm ndax man gënuma ko am naa samay bàkkaar yéen ñi may seetaan am ngeen seeni bàkkaar bari na kilifa gu toog si télé naan usmaan Sonko nangeen ngeen ko foogee woon melul noonu dallu Ousmane Sonko ak pepp karaw Ousmane Sonko moo ko billaahi si réew mi lañ dëkk xam nañ kilifa yi ni ñu mel ak seeni doom ak seeni jabar ni ñu mel moo xam si biir réew mi wala bitim réew man na comme dama miin la petite côte xam la xew Saly Ngaparou Somone ngin Joal ak yi xew si biir réew mi biti réew ñu bari si réew mi xam ko moo tax léeg nga jàkkaarloo kenn tele kilifa muy wax sa rongañ day tuur ndax xamal nga ko loo xam ne soo ko nettali woon dootul wax waaye sa yoon nekku si te nit da nga koy suturaal ngir yàlla suturaal la moo tax jug bi ngeen jug ngir yàq xelu nit ñi parce que gars yi na leer et j'invite les jeunes sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur j'invite la diaspora j'invite mais très chers compatriotes à refuser catégoriquement d'être orientés vers un débat qui n'est pas relatif aux priorités et aux préoccupations des Sénégalais coow li xam ngeen fan la nar mujje ñu ne Ousmane Sonko deful dara waaye nag na ngeen bàyyi xel ne ce n'est pas un saint ni ngeen ko jàppe daal doomu aadama la day juum pour wax ne Ousmane Sonko ak ñun ñooyam nit nag soo demee banaan maak yow yem mooy daanu nga ci kàmb ba suulu xanaa daf leen a gën moo tax ñu naan ñoo ko yow sama maam rahmatullah alayhi sa xam-xam ba macha allah daan na wax ne Malick kaay ma dénk la su xel doon jaay sa marché ba day lamb ma ne ko maam lu tax mu ne ma ku ne xam nga ka la ëpp la xel waaye dof-dof moo tax doo ko bëgg a weccoo waaye xam nga ne moo la mën du sa morom mun ne ma waaye su jikko doon jaay sa marché ba ku dem doo ko fekk ndax day gaaw a jeex du doy ma ne ko lu tax maam mu ne ma su caaxaan jeexee nag ku tëj sa biir néeg xam nga kël a gën looloy dëgg Ousmane Sonko nan la mën a liggéeyee fukki at juróom ci fonction publique nekk chef de brigade de vérification fiscale en charge du secteur immobilier nekkoon secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et des domaines nekkoon auditeur interne au niveau de la direction du contrôle interne de la direction des impôts et des domaines wax ne benn kër laa am nii la mel këyit yaa ngi nii leb naa ba fay bor ba mu jeex benn oto laa am nii la mel awma ma pépp suuf aw ma dërëm deux cent quatre mille sept cent trente-quatre francs CFA moo nekk sama compte bancaire waaye waaye diggante asamaan ak suuf état du Sénégal ak waa àdduna ku ma mas a xamal ci njuuj njaaj ak lu dul dëgg waxal ba tey mënoo leen ko wax vous n'avez rien d'autre à faire que de l'accuser de viol et de menace de mort dans une affaire boo xam ne bis bu ne sénégalais gis ne ay tappale la nañu arrêté waay ñoom ñooy les agents marketing de Sonko saa ñu bëggee nit ñi xalaat ci moom lu bon ñu xalaat ci moom lu baax saa ñu bëggee ñu ne xamul ñu gis ne keroog la gën a xam saa ñu bëggee nit ñi ne dafa bon ñu gis ci moom mbaax Ousmane Sonko keroog bi mu jógee tribunal dañ doon xaar mu wax lu garaaw luñ koy xeebe mu delloo njukkal waa GIGN te su ngeen fàttale ko bañ ko signifier son état d'arrestation dafa jël loxo yi boot ko ci gannaaw pour sa mettre à la disposition de la gendarmerie def nañ ko lu ne cookaas ko même keroog ba mu nee du ma uyu ji ndax respecté ñu samay droit respecté ñu procédure gis nga su lankoon dañ ko fay fekk provoqué ko mu résister ci kanamu njabootam ñu troxal ko ak accusé ko de rébellion d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions ba pare jàpp ko tëj ba mu dégloo kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak les organisations de défense des droits de l'homme ak équipe déglu njabootam mu xam ne naa dem te ba muy dem keroo lan la wax bi ne suba la dafa ne waa Sénégal je vous à témoin maa ngi dem de waaye daañu fexe ba créer beneen délit ngir tegal ma dëgg sa lax Euh, moo tax keroog suñu mbokk mbir euh, ma njaay toog TFM maa ngi koy masawu coono parce que bugguñu kenn yàq alalu kenn te suñuy defati manifestation nañu génn yor drapeau Sénégal chanter hymne national que ça soit pacifique dans la discipline dans le respect la considération bu ñu yàq dara ñu def suñuy discours yeete dellu suñu kër mais Birima Ndiaye moo toog en direct sur un plateau télévisé ay milliards yi doomu aadama di la déglu à travers le monde nga ne aji Sarr dafa dem gendarmerie ne dañ maa violé ñu ne ko soo ko kilifa la te li ngay wax dafa garaaw demal uti preuve mas ngeen di gis kuy dem di porter plainte ñu ne ko demal uti preuve képp ku porter plainte dañuy recevoir sa plainte porte mention def enquête lan moo tax gendarmerie portewul plainte Birima Ndiaye lan moo tax procureur oowul Birima Ndiaye parce que réew mel ni Sénégal nga toog direct en direct télé ni xale bu jigéen bu ñu violé loolu mooy am na crime elle est fragile elle est vulnérable elle est sans défense nga ne dem na gendarmerie ñu ne ko yow demal outil lii wane dañ dañ laa violé nga ñëwaat loolu mooy demal ñu virer waat pourquoi beaucoup de personnes se permettent de raconter des bêtises dans ce pays sans jamais être inquiétées te soo jugee di wax dëgg ñu lay menacer di la xoqatal man ñu may menacer waaye du tax du ma tooñ nag du ma tooñ incha allah waaye danaa fexe rester ci dëgg ndax itam. je préfère mourir dans la vérité que de vivre dans le mensonge je préfère être prisant dans la vérité que d'être libre dans le mensonge je préfère être pauvre dans la dignité que d'être riche au détriment des populations je préfère me tromper de bonne foi plutôt que de faire preuve de malhonnêteté de manipulation et d'hypocrisie donc nañu bàyyi nit ñi ak seen liberté d'opinion ak seen liberté d'expression te ñi am xam-xam di jàngat mbiri donc jeunes buñ leen nax bu leen kenn dugal ci débat Ousmane Sonko d'accord liñ koy tuumaal du dëgg waaye nangu leen ne amoon na benn xale bu jigéen bu nekkoon ci biti bu mu doon giseel bañ leen Ousmane Sonko ay idée la andi ay programme na ngeen ko jàppe loolu lañ koy wax defu tam te même su ko defoon ñu ko gën a bon ñoo nekk ci réew mi loolooy dëgg ndax itam suñ demee ba affaire yooyu des si ay naan sàngara ak ay affaire de jigéen ak yooyu moom euh, léegi réew mi tàkk de <laughs> ndax xam naa ne moom ñi ci nekk dañoo garaaw léegi xam nga luy mbir mi képp kuy politicien na nga yëkkati sa loxo wax li Ousmane ko wax ne bi ma dalee liggéey sama réew ba tey masumaa luubal benn dërëm man ne sañu ma ko wax man sañu ma ko wax de ci kooku kooku wóorul kooku neexul wax dégg naa benn boroom xam-xam si diine mu wax ne ñun ñu nekk si diine sax ku ñu dénkoon lañu ñu dénk Ousmane Sonko nga war see mën a am ay milliards de manière facile ngir nga mucc day yomb. di dañ ko bàyyi xel. donc tey en cherchant à détruire l'image de Ousmane Sonko en cherchant à détériorer sa réputation réputation yàlla ngi koy defar te ñoom yëguñu ko peuple bi ñoo génn ne kenn du ko tëj ndax su dee dafa tooñ dañu bàyyi yoon def liggéeyam waaye yéen gars yi vraiment bu fekkoon Ousmane Sonko dafa tooñ ba ñëpp xam ko kenn du ko jàppale ah dañuy bàyyi yoon dal ci ko mais Sénégal ak bitim réew li jug yëpp dañoo xam ne dañ koo bëgg faagaaga moo tax ñu génn même ñu àndul ak moom maanaam son ko juróomi at yi lépp luñ ko bëgg a def ngir mu yàqule yàlla day andi lu mu ko defarale moo tax ma ne ay adversaire politique am nañu xoolaat seen bopp ndax bu fekkee ne nit ki bis bu ne nga def dara ngir askan wi ne baaxul nee nga rebelle la ne nga jihadiste la nee nga salafiste la nee nga terroriste la nee nga anti français la tey nga ne violeur la soo ëllëgee xam nga lu ñuy wax criminel la beneen jour yu ne meurtrier la loolu jeexul gars yi timis ñu ngi koy nodd dañoo war a julli ji ma jeexal ci benn poñ waaye yéen xanaa Ousmane Sonko war na sant yàlla problème mu euh, euh, moo tax mu dem salon de massage bi tey it foofu attention Ousmane Sonko amul kër gu am piscine bari ay appartement yor ay oto yu cher yor xaalis dem bitim réew déedéet Ousmane Sonko turbee kawe. mais Ousmane Sonko tey soo ko newoon génneel un million est-ce que dana ko génne Ousmane Sonko soo ko newoon génneel tey un million boo xam ne yaa ko moomal sa bopp est-ce que dana ko génne parce que ba mu nekkee fa gaay di sàccee ak di luubal dafa seeti yàlla ak ngor moo tax tey dëgg la vraiment bëgguma muy dem salon de massage parce que dayoom dafa kawe macha allah waaye la coup est déjà parti. mais j'ai compris bi ma gëstoo ba xam lan la fukki at ñeent affaire yi metti si moom euh, ni gars yaakaar na fa yomb di pasar pasaree xaalisu réew mi moom melul noonu mu dem salon de massage waaye mbaa xam ngeen ne Ousmane Sonko doolu dem salon de massage xam ngeen lu tax ses collaborateur qui son en Chine lui ont acheté un lit boo xamante ne waxuma la massage mais dafay noddanti bopp noddanti ndigg noddanti tànk man bëgg naa sax mu alma ndax dama am problème mu yaram léeg-léeg su ma demee hôtel damay def massage waaw sama gars yi neeñ ma na nga moytu parce que temps yi ñu ngi lay menacé man ngaa dawal sa oto ñu saboté ko nga accident ñu ne da ngaa da ngaa def accident fekk ñoo la rey mën nañ jël drogue wala yamba daf ko sa oto wala ñu sànni sa kër ne da ngay jaay yamba drogue Euh, mën nañ laa posone euh, moo tax sànq ma demee sama coiffeur bi di watu euh, maa ngi bàyyi xel sax maanaam est-ce que ñii duñ ma def benn affaire je reçois des menaces hein waaw je le dis sincèrement et je prends l'opinion nationale et internationale à témoin je reçois des menaces et je ne sais pas pourquoi je fais des analyses objectives je ne suis ni un militant ni un sympathisant ni un ami de Ousmane Sonko mais je le soutiens et je l'assume comme j'ai eu à soutenir beaucoup de personnes dans le passé mais loolu su jaree ñu yegg man fenn fii baaxul man ku ma rey dag may noppal ndax da ngay jël samay bàkkaar ñu sang ma sang ma jullee ma euh, jàngal ma alquran wadifaal ma zikar suul ma jàngal ma fana jiinaa yaa xaaliqa shaytaani min kaydihi wasala bil imaani wax ji jeex ma uji yàlla loo def soo sabootee sama oto ma accidenté wala nga posene ma wala nga jël drogue wala yàmbaa sànni ko sama oto wala sama biir néeg na ma dama koy jaay wala sama doom di jàngi nga kidnappé ko wala nga liggéey ma wala nga tuumaal ma complot ma loo si mën a def danga may noppal rek te yow doo am jàmm si coow ngay dëkk ndax itam j'ai tout préparé am na sax yoo xam ne waajal naa ko ba jox ko ay nit na leen s'il m'arrive quoi que ce soit incha allah na ngeen taxaw sama njaboot waaye nag diw ak diw ak diw nangam ak nangam ak nangam na siiw si àdduna bi man j'ai un grand frère magistrat ñoo bokk ndey ak baay depuis 17 ans il est juge tribunal bii dossier Ousmane sonk nekk nekk na fa ay at su ma tuddee turam ngeen xam ko ñoo bokk ndey ak baay mooy sama taawu yaay billahi 17 ans de magistrature benn yoon laa sama tànk bureau te moo ma oowoon si lu nekk na président benn tribunal fii Sénégal su ma fa demee di lijjanti dossier du ma jaar bureau dañaan ko ton jeune frère est passé parce que ñun noonu la ñu yare j'ai un grand frère mooy sama taw papa directeur général depuis vingt deux ans bari na financement yu am dugg Sénégal le président de la République le connaît tous les ministres des finances le connaît gars yi xam nañ ko du ma tudd turam du ma tudd turam un fonctionnaire international du ma dem bureau damay toog ay at du ma dem këram ndax ñun noonu la ñuy yare maanaam tey su ma amoon mag yu nekk président de la république du ma teg sama tànk palais j'ai des contacts dans les ministères à la police à la gendarmerie j'ai des amis partout dans la mouvance présidentielle dans l'opposition dañ may alerter tey rek am nañu ma alerter ne ma sois prudent fais très attention parce que da nga am benn démarche intellectuelle boo xamante ne mën na bañ a arranger ñenn ñi te mën nañ la jéem a faagaagal wala ñu compo complot la dëgg la waaye man awma garde du ma làqatu maa ngi nii lu ma waay def danga maa noppal alhamdulilahi rabbil alamin nga jël samay bàkkaar te doo am jàmm si àdduna ba keroog ngay de donc nañ ma bàyyi ak samay position j'assume mes positions Ousmane Sonko est un homme très intelligent, Manchallah, très compétent. Durant tout le temps où il, où, où, où, il a été haut fonctionnaire, il n'a jamais été cité dans une affaire de vol, de détournement de deniers, de corruption, de conquisition, de fraude, d'escroquerie ou d'autres infractions. xam-xam lay wax ku àndul ak moom ñaanal ko ta ko jàmm parce que programme bi mu àndil Sénégal mu nekk président de la République wala mu koo nekk baax na si réew mi te na si jeunes yi def euh, jàngat mooy ñi nekk Chine li ñu def andil ko benn lal boo xam ne effectivement c'est pour le protéger te yéen ñi nekk si entourage Ousmane Sonko je vous invite à mieux le protéger bu mu lekk fu ne bu mu naan fu ne bu mu watoo fu ne bu mu dem fune ne parce que bii su jàllee aussi kenn xamul waaw kii falu ëllëg yàllaa ko xam mais il faut le protéger donc j'invite l'ensemble des jeunes de ce pays ñu xam ne débat yi du saaga du xas du dara bu ñu topp yenn kilifa yi gis naa benn directeur général toog si télé ñëpp di la dégg nga naan dañoo mbéj fii waaye dootuñu ko dolli ma dégg benn ministre naan ku ñu dóor ñu fayu nga dégg yeneen ministre di wax lu ne mais Sénégal ministre yi ak yenn directeurs généraux yi dañoo bëgg lu neex président Macky Sall bay wax erreur d'ailleurs je profite de l'occasion pour lancer un appel au chef de l'État Je pense qu'il est très important de se débarrasser de ces gens-là qui n'ont aucun autre souci que de renforcer leur privilège te dama jàpp ne ñi jege président de la république ñu koy wax dëgg moo tax ñuy def ay bêtises rek te loolu baaxul d'ailleurs na président de la république def benn jàngat milliards yi mu def ci réew mi pendant neuf ans les jeunes sont insatisfaits loolu li muy tekki mooy ñi doon liggéey ak moom yépp dañ koy nax donc nañu bàyyi yooyu donc jeunes yi bu leen kenn gëlëmal na ngeen dem si ay débat de haut niveau débat yi xamala la politique monétaire politique fiscale politique de la dette gestion du gaz et du pétrole gestion des mines les licences de pêche la gouvernance la gestion des affaires publiques la santé l'économie les finances publiques l'état de droit les principes fondamentaux de la démocratie une justice équitable loolu mooy débat yi dee leen bind si loolu di wax si loolu te bu leen kenn détourné ay Ousmane Sonko waaw deful dara waaye euh, ni ngeen ko jàppee ce n'est pas un saint day def ñëpp di def ku nekkul ci bu gudd bi yaa ngi si bu gàtt bi déedéet am na ñoo xam ne ñoo nekk ci bu gudd bi ak ci bu gàtt bi Ousmane Sonko newul si bu gudd bi newul si bu gàtt bi mu ngi ci patriotisme jusqu'à preuve du contraire bis bu ma gisee mu def loo xam ne yenul maanaa nag ma critique ko parce que j'ai critiqué beaucoup de ces démarches de manière objective na et de bonne foi et j'ai des amis au au donc jeunes yi bu leen kenn nax parce que moment bii ñu andi coowu aji aji Sarr bëgguñu koo forcer am na ay contrat yu ñu signé si biir réew mi campagne de vaccination bi yu baree ngi xew si biir réew mi jeunesse bi bu leen nangu ñu détourner leen. Réfléchissez sur ce qui se passe dans ce pays et organisez des débats de haute qualité parce que yéen ay avenir u dëkk bi vous devez porter tous les combats oui dans la discipline dans le respect la considération hui dans le patriotisme mais de manière honnête de manière ferme bu leen kenn nax dëkk bi ñoo ko bokk ku nekk na nga bay sa waar su dee jotee nga dee su dund jeexagul nga dund yàlla rek moo fi nekk li am solo mooy bu kenn wax lu dul dëgg bu kenn sos bu kenn tuumaal bu kenn wax lu amul na ngeen wax lu xam-xam gën leen jàng yokk seen xam-xam te ngeen xam ne réew mi loolu Ousmane Sonko di oote même soo àndul ak moom nangul ne c'est un patrimoine national et il est important de le de le protéger et je suis conscient qu'il y beaucoup de personnes qui sont euh, rendues compte euh, de cela malgré le fait qu'il ne soit pas Euh, de de ses collaborateurs donc loolu mooy vidéo tey bi la prochaine fois abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos